di nuyu mbokki jullit yépp li eh, wax ni sëñ aatu nag eh, moom dafa romb sax xarit ndax ndijaay la ci man ndax soxna ka mi waajuram wu jigéen ak Amadou Gaye ndikku mi sama maam jur sama yaay ñoo bokk benn ndey kon sama ndijaay la nekk sama ndigaay nag ba noppi nekk sama xarit nekk sama xarit nag xarit bu yàgg lool tubaarkàlla macha allah ba pare nekk sama royukaay nekk sama confident sëñ aatu ginnaaw bi yàlla defee mbokk gi nga xam ni moo jiitu suñu juddu ni ma la ko waxee mu wëlbatiku nag nga xam ni kon sama waajur yu jigéen mooy soxna euh, nuñ koy waxee yoon yàlla waaye mu wëlbatiku jël jarbaatam ki takk ci ki topp ci man muy soxna Ndey Astu ñu am ca ñaari bant yu góor muy abo ak Seex waaye loolu lépp <clears throat> mbokk gaag jaxasoo la muy am yépp dafa am leneen lu ma ca gën a ñor mooy sëñ aatu murit gi nga xamante ni moom la nekkoon te dëggal ko ndax ku nekk xam na ni intellectuel de haut niveau la jàng ca ba jàng yi jafe waroon a mën a roy tubaab yi ca booba ñu koy roy ndax génération bi nga xamante ni ñoom la bokkaloon université ca jooja jamono ku làkkul woon tubaab solu woo solunu tubaab day mel ni bokkoo waaye sëñ aatu ñëw innové ko jël modelu Cheikh Abdou Lahad Mbacke mi nga xamante ni moo leen moo leen samp tey sëñ aatu di samp mag ba pare doxal te doxalin woo xamante ni kawe na suñu njot dëggal boppam ku ko jigéen mu boole la ca la mu nekk ah nekk koo xamante ni ci yoonu murit seex bu ne am na de bànqaas bu ne am na fi ndax mbir mi moom garab la rekk bànqaas ay bànqaas ak i caraki doom waaye sëñ ab sëñ aatute te bànqaas la boo xamante ni man dama gëm ni Seex ab laxat mi nga xam ni moo leen fi bàyyi woon samp leen ba pare tëyal leen boppam tey bu demee fekki ko du rus du rus doxal na ci yoonu murit doxalin woo xamante ni murit buy dëggal bu nekk te bëgg sëñ baam ba war ngaa roy ci seex sëñ aatu def na ci yoonu sëñ Bàmba wi loo xamante ni tubaar fa kàlla macha allah ba àddinay tukki du fay sëñ Aatu dafa gudd fan xam nga gudd fan boo ko xoolee du fan yu bari boo ko xoolee ci ay jëfam nga xam ni sëñ Aatu gudd na fan te du fi jóg ba mukk soo ko xoolee ci ay atam ak yan bu diis bi mu yanu woon ak li fàqe ci yam bi yépp ak coono yi mu jànkoonteel yépp nga xam ni sëñ aatu gudd na fan loolu nag su ma ko dee wax dama koy wax état de cause ndax ku jiite mbooloo bu doon ñetti nit la sa xam nga jiite mbooloo ni mu mettee kon sëñ aatu ko gudd fan la sëñ aatu nag digganteem ak Seex ab Lahad ginnaaw mbokk gi man sama baay Abdul Baaxe Jaxate moo ma booleek sëñ aatu ndax bokkuñu woon fu ñu yaroon man maa ngi woon ndànd ñoom ñu ngi woon ngaay ñu ngi woon bi jóge fa ñëw euh, université waaye bileen Seex ab laxaat sampe ñu nekk ca wanagam wa di fa togg njaari mbana sama papa di nekk ak ñoom ma ñëw mun ma xam nga kii ma ni ko kii de xaw ma ko mun ma sarak di jàng na la ma ne ko ah mun ma waaw daal di ma koy présenté keroog laa jàppanteeg sëñ aatu ba ni ñu leen di yóbboo ci kër sëñ Abdou Aziz Baara googu ci wetu jana say